bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy xam-xam bu ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaa bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokki Sénégal mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman dellu siwaat nañu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci axiru zaman di jaajëfal sunu turandoo Saas Maxtaar Sarr mi nu àndaloon ci jataay bi weesu doon waxtaanee phénomène bu doy waar mooy ñu bari tey jëfandikoo xam-xam yu bon yu ñuul lu jëm ci wàllu fétiche li ñuy tuddee machine noire ngir alal ñu bari jaay nañu seen àdduna walla jaay nañu seen allaaxira jëndee ko àdduna ngir alal ñële nga ca faux ya ñële ña nga ca raxasum kayit yu ñuul ya waaye ñële ña nga ca xërëm ya ci ay deret ak joxe say cër ak yu ni mel ngir doon millionnaire wala milliardaire aaxiru zaman bi weesu ci loolu lañu doon waxtaan tey nag incha allah dañuy waxtaanee lu jëm ci wàllu daara ndax dañoo jéeg dégg ne gouvernement du Sénégal wala jot nañuy xibaar yu confirmé ne gouvernement du Sénégal le 28 bii nu dëgmal di dëppook altine daf ci woote benn daje daje bi nee nañu ñaar mooy yillay woote bi sargal soxna Ndate Siise ak ñu mel ne moom soxna Ndate Siise moo jëloon concours international bi fële ca Dubaï waaye waxtaanee jafe-jafe jafe-jafe sëriñu daara yi nee na ñaar yooyu mooy yillay woote bi wax nañ ci keroog ci émission daayira bi mais tey dañ ciy siwaat ci gën a yaatal Euh, te mu waxtaan wi mooy ndax la 28 boobu noonu le dafay dajale sëriñ daara yi wala dafay tàqale sëriñ daara yi ndax journée la boo xam ne nii pour régler problème mu daara la wala pour yokk problème mu daara la laaj la boo xam ne nii ci biir waxtaan weeg li ñu ci nar a feeñal dana am lu mu tontu ci laaj bi li ci des nag la ca kanam rawuli gët ni ko wolof yi di waxee ndax la 28 bii nu dëgmal day régler jafe-jafe sëriñu daara yi wala day yokk tàqale sëriñu daara yi ndax li xeeñagum te ñu yëgagum ko xamagum ko mooy sëriñu daara Sénégal yu bare baree bari ak i kuréelu sëriñu daara nee nañ daje boobu kaccat leen ca demuñu yeblewuñu fekkewuñu am na ñeneen ca wet ga ñu ne bis ba ku leen fa dëgg ne leen mas kon déjà alxames jii ak lu ko jiitu tàqalikoo bi tàmbali na sànnante ay kàddu yi tàmbali na te lan moo ko jur dañ ne dañoo woote bis ngir régler seeni problème nga woote bis ngir régler problème problème yi tàmbali lan moo xew li xew nag danañ ci dugg ci biir waxtaan wi ci ay détails ma gën a jooyal waxtaan wi ku mel ni man Makhtar Sarr demuma yeblewuma ku dem ci sama tur baaluma la ko pour mu leer sama position mu leer wax naa ko keroog ma waxaat ko man Makhtar Sarr demuma yeb lewuma ku dem ci sama tur baaluma la ndokk sax invité wuñ ma ma wàccewaat jógee ci Makhtar Sarr tudd kuréel bi may coordonné muy aar daara incha allahu taala man naa am émission bi balaa jàll seen déclaration di ngeen ko dégg waaye ba fii ñu ci tollagum bu dee téeméer la juróom-ñeent fukki ak lu topp yëpp nee nañ demuñu bokk te li tax aar daara ne demul desaa li jur aar daara rek mooy wane li tax aar daara ne demul ndax aar daara dañoo jugoon di tas daara yi di delloo ndongo yi di duma sëriñ daara yi di duma ndongo daara yi te lu ci nekk ci ay éléments ci biir waxtaan wi mën nañ ci joxe ay preuve keroog dañ doon wax rek mais nañ leen wantey yenn yennaat ci biir yooyee ñu doon wax ba aar daara ci la jógee ne suñ daara yi dañ koy aar du nu nangu ngeen ñëw fekk su daara yi maam ngeen ne da ngeen leen di tas di layoo covid ak yu ni mel milliards yi nu dugal ci jéem a jëlee xale yi ci daara yi buñ ko dugaloon ci daara yi ba léegi daara yu bari jag na kuréel bi looloo taxoon mu juddu li tax kuréel bi juddu nag mooy wane ne bu doogee ba tey fàtte xaju fi barki dee moo njaay la yàggut 2020 2021 2022 fàtte xaju fi gannaaw li nu metti woon yéena nu ko teg tooñ ñu te ba léegi baaluwu leen nu leen nu ba tey te da ngeen ñoo tooñ tooñ gu béer duma nu duma sunuy ndongo fekk sunuy ndongo ci seen biir daara yor yat lu xewoon fële ca Cambérène yat lañ yor fekk fa ndong ya di duma daj ji porte fekk ndong bu ne ci toilette ñu yenu yóbbu xale yee jotoon a njëkk a dem dañ leen fa yóbbu ñenn ñi ay mag lañ ci centre yañ leen yóbbu ñu tëb miir génn léegi nii suñu technicien bu ñu jógee ci waxtaan wi danañu tegal oustaz Saliou Thiongaat ngeen déggal ko seen bopp muy nettali loolu ak yeneen yu bari yoo xam ne danañ ko dolliwaat tey ca la ñu waxoon looloo waral ku mel ni aar daara euh, kuréelu sëñ daara yi xam nañ ko de sénégalais yi bari tamit xam nañu aar daara de fu ñuy waxtaanee daara ci Sénégal ñu ne aar daara teewu fa dana am ñu laajte lu tax teewuñu fa li tax nag bokk na ci kenn invité wu loolu rek doy na pour ñu ñàkkoon a bañ a dem bu ñu nu invité woon yi tamit li ma dégg gumba fii ma toll nii ci réaction ñi bokk ci aar daara fooguma danañ dem waaw loolu moom waa aar daara la may jeexi jaaxa ndax danañ demam demuñu mais man Makhtar saar mi xam politique yi ñu toll élection yi ñu dëgmal Sénégal gi ñu nekk ñun dëkk fi avant mille 2012 la xewoon ci président Ablaye Wade ci bi mu demee ba bëgg a toogaat ci réew mi wër ci këru diine yi fu ne mu dem fa ngir utee ko wéeruwaay ku fekke woon 2012 ñëwaat fekke waat 2022 defe naa am na yenn yoo xam ne nii kenn du la ca dugal nga cay nangoo dugg mhm. ku xamul na xamul waaye ñoom politiciens yi fi mu toll nii ba élection yi di ñëw mbooloo jamaa la ci ñoom mbooloo mbooloo or la ci ñoom jamaa la ci ñoom ay naaf la ci ñoom naaf baykat yi bay gerte xam nañu naaf na naaf fooree jamaa amee ko solo ak or mbooloo tamit noonu la amee solo ci politicien moo tax ku leen mën a mobiliser mbooloo mbooloo ma fu mënti jógee dañ cey bëgg dañ cey kontaan pare cey dugal ay million sëriñ daara yi nag bu ñu nangoo ñoom ñu doon ñi nga xam ne ñoom la ñuy dajale ngir defar seen image ak régler seeni compte bismillah yoon waa ngoog man deey new ma kenn bul dem aw ma benn saytara ngir ne ma sàmba bul dem wala ma dem ba bul dem waaye man xam naa sama bopp xam naa lu baree baree bare bari te lenn danaa ko wax moo tax ma ne demuma yëpp lewu ma bokku ma buñ ma tegaloon dix milliards maa bañ bëgguma soxlawu ma demuma waaw ndax munoo maa bett ginnaaw dóor ma kurfañ rëkk ma dëbb ma kuur jam ma paaka ñëw taxaw sama kanam naan ma euh, kaay ñu waxtaan te newoo ma massa baaloo ma fajoo ma loolu mooy li xew ci daara gouvernement du Sénégal bii def ko sëriñu daara yi yàgg naa am mais ci ñett at yi li daara daj ci Sénégal mosu koo daj xanaa ca jamonoy colonial yi ba ñuy dégg ne Faidherbe mi ngi fi woon ak ñu mel ne bu waaw loolu moom la daara dajoon wax dëgg dajaguñu ko ndax rayaguñu te Faidherbe da daan rey di taali daara di tëji sëriñ daara di reyi sëriñ daara waaye bu weesoo bu dégguñ ko ci jamonoy Senghor du jamonoy Abdou Diouf du jamonoy Abdoulaye Wade ñetti at yi li daara daj ci Sénégal loolu nag mbokk yi sabab na bu ñu demee ñoom bu seen pexe antu woon tey duñu woo sëñ daara yi ne dañuy waxtaanee seeni jafe-jafe déedéet seen pexe antuwul te waa daara jee leen ci bàyyiwul laalante bu saf sàpp moo amoon te ba léegi nag ah la woon a ngi fi de bu ko laajul rek laaju ko da am na yoo xam ne nag bu ko laajul boo ko génnee yow mi ko génnee ah dañ lay sanctionné nag mhm. Sénégal gi kenn waru noo yeb bu ma ne nun nag mooy sëriñ daara yi ku nu yeb ñàkk jom dong ngay tax nga yeb nu ak ñun tamit ñu ñàkk xam sunu bopp ak linu yor waaye président bu bëgg a falu ci sëriñ daara yi lay dem ñoo koy bindal muy sangoo ko suuroo ko takk ka naan Sénégal la ñu dëkk kuñ ci bëgg a folli nga daw ci sëriñu daara yi ñoo yor seeni kurus di jàngi yaasin di ñaan waaw ki nga xam ne bu bëggee falu yow lay daw ñëw ci yow bu mu xonqee mu daw ñëw ci yow su faloo bëgg la fontoo mais yaa xamul sa bopp te yaa ko nangu bu nu xamee li nu doon kenn du nu yeb te 2021 wane nañ lenn ci ñi nu doon te la woon ba léegi moo fi nekk ba tax na problème mu daara gouvernement bii gisuma tous lum ñu ci mën a régleel gëmuma ko gisuma ko ndax 2012 ak léegi am na fukki daa juróom benn fukki daara ñeent yu ñu wax ne kat danañ ko tabax te loolu ci jamonoy ab Ablaye Wade la woon projet bi fukki daaraak ak juróom benn fukki daara ak ñeent mooy 64 daara yi 32 public 32 privé ba léegi furaas daal di xëddeen benn daara yëguñ ne inauguré nañ ko ca loolu mooy liñ war a njëkk rek le avant ñuy woote ngir di waxtaane benn jafe-jafe mooy nañu auditer 64 daara yi ba xam milliards yiñ ci dugal fan la duggu tey dañoo waroon a woote le 28 bii ne bis bii la ñuy inauguré waale daara yële nga xam ne moom lañ tabaxoon waaye bu yàggul dara la ñu woo sëriñu daara yi ne leen ñëw leen ñu waxtaanee jafe-jafe utal leen ñu solution sëñ daara yi lalu dem tënk seen document bu toll ne ñay yan ko yóbbul koy ministre te ay kilifa ñoo ci liggéey sonn ca document boobu noonu leen ñu proposé woon gouvernement bi ngir lu solutionné problème yi nekk ci daara yi document ba ba léegi ñu ngi ko jël sànni ko fële ci àll ba waaw léegi bu ñu toogaatee ba mu neex leen ñu ne léegi ñëwaatal nga waxaat say jafe-jafe loolu nu mu tudd loolu yàpp la ak fontoo la bu doon mbir mi da leen a ñor pour ñu régler problème yi dañuy ñëw ne ah am na lu ngeen ñu fi proposé woon kat léegi ñëw leen nag ñu toog ñu waxtaan loolu ngeen proposé woon état bi càmbar na ko léegi seet na lii mooy li ci mën a nekk lii il faut ngeen xaar lii mënu la nekk su boobaa ñu ne ah ñii kat considéré nañu ñii waaye loolu amul loolu amul loolu amul ba tax na ñu bàyyi xel bu baax a baax ne sëriñu daara yi du ñuy ay naxandoom nag du ñuy naxandoom waaw ku nangu ñu nax la rek yaa nangu ñu nax la waaye jàngal nañ la ci daara ja lu lay yee waaw ba nga ne jar nag jàngal nañ la ko ca daara ja ku dem ci daara ja jàng alxuraan wattu ko téere sunu borom ak kàddoom gu màgg gu kawe inna sa nulqi alayka qawlan saqila loolu nga jël ko yow peeg ko ci sa bopp bi <laughs> di dox ak juróom benn fukki wala juróom benn junni aaye alquran ak lu topp di dox ci sa bopp bi ngay dox ak moom di yendoo moom di fanaan ak moom boo yeewul yow la neex ñu pare jàngal la lu bari ba jàngal la àdduna seen téere luxa yooyu ñu doon jàngale lu mel ne ibnu duraydu maqamatul hariri shuaraawul jahiliya ay muxtaarul adab yooyu noonu le téere ya nga xam ne wala ya nga xam ne moom lañ lay jàngal ci biir bu yeewul ci àdduna yaa bëggul a yeewu waaye yee nañ la nag nit du ko jàng ba noppi nag pare nekk euh, koo xam ne nii dafa am lu ñuy ut di la ko utee nga nangu ko soo ko nangoo rek yaa ko nangu ku ko nangu nag ah li ñaan li lu waay nangu teg ko ko dagan na loolu la rek lu waay nangu teg ko ko dagan na waaye am na ñoo xam ne nag duñu ko nangu su ko defee kon loolu ñu bàyyi ci xel bala ñoo dugg ci waxtaan woowu xuus ci Cheikh Mor dañuy ñëw ci ñamali lu jëm ci coupe du monde bi <laughs> dégg naa Sénégal àjjuma lay footballaat treize heures heure bi nga xam ne ci la noddukat bi noddu pour ku amoon bureau nga war ko tëj commerçant yi war a tëj seen magasin ñu nekkoon ci yeneen yëpp war ko bàyyi ngir dem waa waajali juma heure boobu noonu la arbitre bi sifflé ne match bi tàmbali na ci la noddukat bi noddu ne ñëw leen julli si juma mhm. laa ilaaha illallah noddukat bi ne allahu akbar yàlla gën a màgg match at bi mi ne bépp sifflé ne tàmbali leen match bi malaaka yi di surveiller taxaw ci buntu jàkka yi di xaar mhm. malaaka yi bu àjjuma jotee dañuy ñëw ci buntu jàkka yi di déglu la fay la fay rot ak ñiy julli si malaaka yi ñëw taxaw ci buntu jàkka yi di xaar ñi doon ñëw di julli si ñu bari ne ñoom ñëwuñu lu leen téye senegal mooy football wala yaadu billah la ngalawaay yow mi may seetaan bu la seytaane fab bi ba nga bokk ci ñi nga xam ne seetaan match ñooy teye ñu dem julli ci jumaa heure ba nga daan dem jumaa bu jotee demal nga julli ci jumaa yàlla nekkul ci yi ñu ne de déedéet tey loolu laa naroon a yaatal sax ngir waxtaan ci bu baax a baax comme ni ma ko diggee woon keroog ci daayira bi daa fekk ne lii da di loo xam ne nii moom it lu jàmp la ngir ñu waxtaan ci waaye keroog daayira bi bi ñuy waxtaane laxdari bi ñu ngi toll ci wa taxiru salaati an awqaatiha xaraam na ci mu këllëf mu yéex a julli ba waxtu weesu ñu def leeral wane na ñu baree bari tey ci jullitu senegal yi bu senegal di football duñ julli waxtu du julli waxtu duñu julli waxtu ñaata sénégalais ñooy toog di seetaan match bu jeex ñu jàll ci beneen di seetaan duñu julli te sunu borom nee na fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim saahun mbugal ñeel na jullikat yi nga xam ne nii du ñuy julle waxtu an salaatihim saahun boo demee ci jalaalay ni mi ngi ko firee ñi nga xam ne dañuy yéex a julli an awqaatiha ba waxtu wa weesu ku yéex a jullit ci lu dul ngànt ba waxtu wa weesu bàkkaar bu rëy mi ngi lay xaar boo demee ci biir lax laxdari yu ba tey mi ngi koy wax ku yéex a julli ba waxtu wa weesu fa alayhi ithmun kabir bàkkaar bu ngand mi ngi lay xaar bu màgg ku yéex a julli ba waxtu wa weesu ndax yàlla moo ne ba tey inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta julli dañ ko utal heure du heure bu la neexee ngay julli mais heure biñ ko santaanee ngay julli ngant julli nag fante fàtte ci la bokk wala nga nelaw ci la bokk wala nga nekk ci situation yoo xam ne nii mayu la ngir nga julli ci ngant yi nu xam yaa ngi tukki nekk ci yoon amoo possibilité mën a julli yu mel noonu la ñuy considérer ne ngant gu lay tee julli waaye senegal mooy daje xatar du ngant rawatina nag bisu àjjuma laa ilaha illa allah àjjumaa foor soo bàyyee benn àjjuma te tey ko sa xol bi bu nekkoon ñetti xaaj benn bi ñuul na këriis nga bàyyi ñaari àjjuma te tey ko ñaareelu xaaj bi ñuul këriis nga bàyyi ñetti àjjuma te tey ko ñetteelu xaaj bi ñuul këriis sa xol bi ñuul këriis yenent bi nekk ku bàyyi ñetti àjjuma ci du dul ngànt su fekkoon lislaam da nga ko yor nii ci sa loxo sànni nga ko ci sa ginnaaw ku bàyyi ñett àjjuma te tey ko kon maa ngi invité waat jullit ñëpp ñu xam ne yàlla sunu borom subhaanahu wa taala fowul foolu wul yàlla nekkul ci caaxaan yi nu nekk déedéet yàlla mi ngi ci yàllaam gi nee na diggante asamaan ak suuf binduma li ci nekk ak asamaan ak suuf binduma ko ngir foo yàlla moom fowul loolu moo tax foolu wul te football am po doo nekk ci mpo nag ba lu toll ne julli taxaw noddkat bi ne yàlla gën a màgg lépp loo nekk kaay leen julli hayya ala solaa liqaamkat ba ne qad qaamati solaa julli jege na nga toog di seetaan match ak sa émotion di tëbaka dal di jàpp bopp di baaganteeka ñëw ah iblis a nuy foye de iblis moo nuy foye ci match yi te léegi dugal nañ ko ci xol yi ba nit ñi bëgg ko ba mu match jotee taluñu dara dara dara talu ñu lekk ñu naan ñu wax talu ñu dara lu dul toog rek janoog match euh, télé yi ànd ak émotion yu doy waar divertissement yooyu nga xam ne nii lobby yi ñoo organiser lu mel ne football yi nii bëgg loo ko nit ñi dugal ci milliards yi ñu ci dugal waaw ah, waaw falaa taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxaruur bu leen saytaane fab bi ba ngeen fàtte yàlla loolu mbokk yi moo doon ñamale gi ci fàttali bëggoon nañ cee indi yu bari mais du ñàkk jataay yi ñëw danañ ci dikkaat ci yeneen ci coupe du monde beeg xatar ak niñ ko organisé yooyu am na jàngat yu baree bari yees ci mën a def lees ci mën a def incha allah mu ngoog su ko defee kon ñu ñëw ci sunu sunu sunu thème mooy le 28 ministre éducation nationale ministre de l'éducation nationale moom moo amoon yéene ci ne day sargal soxna Ndate Cissé ministre l'éducation nationale moo amoon yéene ci ne day sargal soxna Ndate Cissé mi jël concours bi gannaaw bu ko aw nit sàkkoo ne jaadu na ci biir loolu mu am xalaatu nanu ko yaatal wax ceeg président nee na salon moom li mu wax wax ceeg président pour ñu yaatal ko waxtaan ca waxtaan ci waxtaanaale ceeg sëriñu daara yi seen jafe-jafe yi nga xam ne moom lañu am ñu jéem a xool nuñ ci waxtaanee dégg nga loolu Cheikh Omar da ñuy dégtal rek li ministre bi wax bi mu demee seeti xalif bi foofu sax lañuy ñuy dooree laataa ñuy ñëw ci lëggi-lëggi waxtaan wi mooy bi ñu jàppee la 28 bi ba am sëriñu daara yu déclaré ne demunu ci lañ daw dem ne dañ koy tuddee xalifa yi ngir jéem a calmer tension boobu noonu la danañ ci dikk bi mu demee nag ñu déglu déclaration la nga xam ne nii wax na ko fa ci lan moo jur bis bi ak li mu wax président ak saal bañ koy defee ak junni nit ak juróomi téeméer yañ ca woo ak la ca aju ñu déglu ko dellu si. ah leen a war a boole ci liggéey bi loolu nag bañ gisee ma wax ak moom. bu fekk ne li tax ñu wax ci man ba may egg ci ministère bi rek dafa tasante woon ak xale bi dem woon euh, nekk championne euh, lecture cours euh, jàng ci al jàng alxuraan ma recevoir ko ma gëstu gis ne loolu il faut mu wax ceeg moom ma ne ko ndax buy daje xale bi di ko sargal bëgg naa mu boole ci ñi nga xam ne ñooy jàngale ci daara yi loolu baax na dinañ ko def présidence ñu yaatal ba ma dellu see di wax ak moom mu ne ma déedéet nañ ko defee si ses ñu gën ko yaatal si euh, si kàdd nag foofu am nañ euh, salle bi junni nit ak juróom téeméer xeej nañ fa waa jam na mu ne ma nag naa ñëw ci yow terale la ko wax la ne lépp mu ngi si sa loxo noo ko gisee rek ak noo ko bëggee rek ñu tërale ko noonu moo wax la ko dajal la ko bëgg nañu ñun ci ministère bi ñu ngi yëngatu bëgg wax nañoo gouverneur yi ñu wax ak préfet yi ñu xool ci Sénégal yëpp fépp fu daara nekk ñu xool naka lañ leen di dajale ñu waxtaan seen biir xool lan mooy seeni soxla lan lan lan la ñu jànkonteel ci jafe-jafe ak nan lañu gisee fan la daar nan la ñu war a duggale daa nan la ñu war leen jàppale ci nguur gi ci réew mi yëpp nu ñu war a taxe buñ demee ñoom ñu dajaloo ñu waxtaan ñu dajal leen ñoom ak IA bi ci nekk ci euh, ci région bi ñoom it ñu dajaloo ñu bind seen bataaxal buñ ñëwee ñoom am ñu wut kenn ci ñoom ku koy wax ci kanamu président euh, tamit bëgg nañ tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu am nañu ay daara bu yàgg ba léegi yu mag euh, fii ci Touba bokk na ci liñ ci gën a gëstu ñooñ tamit ñu boole leen ci mais lépp ñu teg ko ci loxo sa loxo yow ak euh, loxo xalif général des Tidianes loolu la ma wax lu ngeen ko waxee rek noonu lañ koy defee parce que bëgg na tamit euh, këru diine yi parce que lépp ñoom la lépp yéen la lépp bu àggee fii Sénégal bu àggee fii ci diine ci léen la ñu terale leen ko te bëgg na tamit yéen tamit ni ngeen ko gisee ak ni ngeen ko bëggee ngeen wax ko fa ngeen mënul ñëw tamit ngeen yónnee ku nga xam ne bu ñëwee dina wax wax ak sénégalais yi waxal li ñu gis ak li ñu bëgg moom dina leen déglu ci ñetti waxtu waaw ñetti waxtu moom ak ñëpp amba ambassadeur ambassadeurs yi nekk ci Sénégal yëpp dina leen indi assemblée nationale président institution ñëpp dina leen dajale foofu ñëpp dinañ ñëw toog déglu li ñuy wax bu pare nag moom tamit ci li muy wax dina ci génne jël décision nga xam ne décision présidentielle nga xam ne noonu la ñu war a taxawee comme ni ñuy defee euh, fan yi ci wàññi njëg nga xam ne bu waxee gouvernement bi yëpp da ciy liggéey moom tamit dina jël foofu ay décision yu génn ci wax ji ak ni ngeen ko bëggee pour lu nga xam ne Sénégal gouvernement bi ak yëpp ak moom ak premier ministre am ñëpp dañ ciy taxaw liggéey ko ci daane sëriñ loolu la ma président waxoon naa ñëw wax la ko jottali ko. kon déggee nañ ci kàddu ministre bi ne du président toog ba mu yàgg yëg ne daara yi dañoo am jafe sëriñu daara yi am na lu leen metti mu woo leen ngir ñu waxtaan lan mooy régler jafe-jafe yi mais ministre bi moo amoon yéeney ndokkeel wala sargal wala neexal kenn ku jëloon concours ne yattaale boobaale kon nañ ci jéem a nañ ci profité waale sax woowaale sëriñ daara yi ngir waxtaane seen jafe-jafe président ne ko d'accord ndax lii mooy woote ngir waxtaane jafe-jafe daara yi déedéet Mhm. ndax yàgg na fi am ay doomu réew mi dem bitim réew ci concours jël ndam la del si Sénégal te mosuñoo woote ci saal buy jël junniy nit ak juróomi téeméer ñu convoqué leen ngir sargal leen te nee na mbir mi danañ woo mboolem institution yi ñu ko jiite pour ñu ñëw fekkee si ko mhm. <laughs> ndeysaan Mouhamed Moujtaba jàll ba muy jël lu mel ne lii Ndata Cissé jëloon boobaak léegi def na lu mu néew néew ñettaat ci ginnaaw wala ñeentaat woowuñ ko sargal ko tatagal ko comme nii lu fi ñor bañ koy macc léegi woo soxna Ndata Cissé rek pour sargal ko xanaa doy na sëkk waaye léegi nañ waxtaane waale jafe-jafe daara yi ndax bu ñuy waxtaanee jafe-jafe daara yi dañuy woo lu mat junniy nit ak nàngam pour ñu fekke ko loolu fu maam am nañ waxtaanee jafe-jafe daara yi mais léegi yéen sëriñu daara yi da ngeen waale seen ndongo daara yi ñu waxtaanee jafe-jafe daara yi département bu nekk région bu nekk na fa nàngami sëñ daara jóge ak nàngami ndongo ñu ànd te li doy waar ci woote bi mooy ak wane ne nawloowuñu sëriñu daara yi ministre bi moom moo jëlal boppam woote bi iyaay yi la ko sant iyaay yi nekk ci gox goxaan yi nga xam ne ñoo yor wàllu école yeeg yu ni mel ñoom la ñu sant pour ñoo war a convoquer sëriñu daara yi woo pour nan la ñuy ñëwee ci bis ba daara yi am seeni kuréel yu baree baree bari ci Sénégal naka nga mën a jógee ne da ngay waxtaan ak ay kuréelu wala benn secteur te secteur ba ña nga xam ne ñoo ko ŋànk nawloo woo leen ñoom sax pour charger leen ñu wool la seeni naataango ngeen ñëw toog ci taabal ngir waxtaan loolu mooy wane ne waxtaan taxul jug rek régler problème taxul a jug mais am na leneen loo bëgg loo waxut te li nga waxut nag am na ñu ko xam léegi nag bi ñu annoncé bis bi première ñàkk worma ji ñàkk worma sëriñu daara yi mooy gàttaay bi maanaam diggante bi ñu wootee biñ ko yégee ak fi jëm ci une semaine lay toll juróom-ñaari fan lay tool ndax ci altine ji nii ku mel ne man ci la ko yég te ñu baree baree baree bari ñu mel ne man ci lañ ko yëg ne altine ji bu dellu see ci la ñuy woo sëriñu daara yi ngir waxtaanee seeni jafe-jafe ak sargal Ndaté Cissé diggante bu gàtt bi ñu ne waaw ñan ñoo woote ñu ne waa IA yi ña nga xam ne nii ministre éducation moom moo leen yilif woowuñu école bi de mais daara yi la ñuy woo te daara yi li nga xam ne moo ci nekk ministre éducation bu Sénégal xamu ko ndax ñoom moom ministre éducation wàllu daara ci Sénégal dëgg-dëgg yoruñu ko ci at mu mujj lañ tàmbali naan daara daara éducation mais daara dugal nañ ko ci ay jamono ci culture lañ ko daan boole culture lañ daan boole daara ci ay jamono bu yàggul ci Covid bi daawuñ tudd ministre éducation mais protection des enfants lañ doon dégg bi nday sali jéem euh, Jóob Jeng jiite woon protection des enfants ministère boobu lañ dugaloon daara moo tax bi ñu demee ba mbiri tàng bi ñu récupéré xale yi ba mbir yi ñu ëlbatiku naan dañuy neexal sëriñ daara yi ministère bi moo gàdd woon ceeb ak diwam ak suukaram di wër di ko jox sëriñ daara yi éducation nationale joxu leen ko woon waaw kon daara éducation nationale yoru ko ci Sénégal te bokk na ci li sëriñ daara yi di revendiquer bu yàgg ba léegi ñu bëgg ñu defal leen ko mooy daara am ministère am ci senegal te yell na jaadu na dëkk bu quatre-vingt-quinze musulman nekk ci senegal ñaata daara ñoo nekk ci senegal kenn xamul nu mu toll ci daara yi nekk ci senegal ci bariwaay tuubaa gii rek junni daara ñeenti téeméer ci recensement bu yàggul nekk na fa biir tuubaa rek li yeneen gox yi ci senegal mais secteur boobu yelloo na ñu am seen ministère bu demee ba nga xam ne mbandkat yi sax am nañ seen ministère mbandkat yi fekk ci tëb woy théâtre kat baag nangam nangam nangam am nañ seen ministère yeneen i zone yu bari ni ñu nekk ci Sénégal yoo xam ne daara moo leen ëpp fuuf effectif bu ñu am ñoo ñu am nañ seen ministère daara mënu ko am waaw léegi moo tax bu ñuy woo daara léeg-léeg bu leen neexee ñu ne ministre éducation nationale te éducation nationale moom budget dërëm bu cay jógee di jëm ci daara yi amul lu dul daara ju nangoo jàngale tubaab te su boobaa nekkul jëmmi daara ji la ñuy jàppale mais tubaab ba ñuy jàngale lañuy jàppale maanaam éducation nationale amul benn junne bu muy jël di ko jox benn sëriñu daara bu jàngalewul tubaab amul te loolu lañ bëgg a wëree ndomma sëriñ daara yëpp mooy fexe ba léegi ñu waxtaan jéem a xool nu ñuy améliorer condition wu daara yi jéem leen a jàppale jéem leen a considérer mais wër ndomba gi mooy fexe ba liñ gis mu nekk ci daara ci ay nit ñu bari ci internat yeeg lépp ñu fexe ba ñoo ñëpp ñu jël leen këpp leen ci biir éducation bi maanaam effectif bi ñu soxla ndax ba léegi li ñu soxla ci wàllu alphabétisation pour xale yi jàng ko ci tubaab ba léegi amaguñ ko état du Sénégal atteindre gul objectif am ci mën a maanaam ci li ko ñi koy jox seeni milliards bailleurs yi liñ koy laaj pour ñu war a am taux bu ni toll ci wàllu xale yi jàng tubaab ba léegi amaguñ ko te li leen koy may bokk na ci mooy ñu fexee jël ñii nekk ci daara yi fexe ba ñuy jàng tubaab moo tax léegi buñ mënul a jël xale bi pour mu dem jàngi école léegi dañuy ñëw fexee jël daara ji def ko école am na bànqaas yu mel noonu ci biir ministère ba ma dellusiwaat loolu débat bu gudd a gudd la mais léegi ministère boobu noonu la moom moo xëy moom ne léegi moom mooy coordonnel boppam sëriñ daara yi war a dajeeg président loolu ñàkk nawloo sëriñ daara yi fa la tàmbali man man nga ma woo pour ñu waxtaan te léegi man mi nga xam ne maa nekk ci terrain bi xam sëriñu daara yi xam seeni jafe-jafe xam ñan laa war a woo ñu war a ñëw toog ngir wax ak président wax jafe-jafe yi man nga jël ma teg ma fële ci àll ba dem jëli ay IA ñoo xam ne nii jàngum tubaab lañ gën a xam ñooñu nga jël leen woo leen ne leen kaay leen ngeen utal ma indil ma sëriñ daara yi pour ma waxtaan ak ñoom kooku naka la mën a xamee sëriñ daara yan ñoo war a ñëw pour wax jafe-jafe yi nekk ci daara ñi ci xam lañu mais ña nga xam ne ñoo nekk dëgg-dëgg ci lëgg-lëgg mbir yi xamuñu leen léegi nag bi ñu leen wooyee coow li ne kur sëñ daara yi ne kan moo nuy woo ka ñu doon dóor ak a xaañ tëj suñuy daara ak delloo suñuy ndongo ñu bari ne demunu am na kuréelu sëriñ daara bu mag bu boot daara yu bari ci Sénégal mooy rabitatul madaarisil quraaniya ligue des écoles coraniques bi Sénégal nga xam ne nii sëriñ basiiru moom moo ko jiite fële ca Touba waaw sëriñ Basiru Mbàkke Habib suñ Xaadim Njaay nekk secrétaire bi fii ñoom def seen déclaration ne demunu bokkunu ndax ñoom ñoo sasoo lañ sasoon ci jamono pour ñu tëggoon benn document buy solutionner problème mu daara yi ñu lëlu borom xam-xam yu mag ñu mel ne ab Abdou yu Touré sunu bàyyi ju tedd ju baax jooju ca Fass yàlla yàlla yàggal ko te wéral ko ak ñeneen ñi ngi ci biir kuréelu Serigne daara yooyu waaw daaray kokki ci kuréelu Serigne daara yooyu la nekk <laughs> daaray kokki daje bi kuréel biñ bokk nee nañ demuñu daaray fas Touré sëriñ Abdou Aziz Touré nekk mudir ba tey doon baayam ja sëriñ Haari Touré daara jooju noonu le kuréel bañ bokk nee nañ demuñu ci daje bi ak yeneeni daara yu bari yu nekk ci Sénégal te bokk ci kuréel boobu noonu le nee nañ demuñu te ñaari daara yi rek bu ñu leen tuddee ci Sénégal Faas Touré kokki kuréel buñ bokk buñ ne demuñu ñan ñooy dem ñoo ñu def seen déclaration ne demuñu ba noppi ñu xam ne kuréel boobu noonu ne ka ko jiite kilifa la ma nga Touba daara yu bari yu bokk ci kuréel ba ña nga Touba ak zone boobu noonu le ministre ba ba ñu defee seen déclaration la daw élément bi doon jàll léegi mu dem ne dañuy day tuddee bis bi Serigne mun <laughs> waaw ne tuddee dañuy tuddee bis bi Serigne Mountakha dama ko seetaan ndeysaan reetaan ne guleet ci Sénégal ma gis benn secteur bu ñu woo pour waxtaanee seeni jafe-jafe tuddee ko nit guleet ñi ñoo ñàkk worma te ñàkke ko sëriñ Muntaxa xamuñ sax ñàkk worma gi ñu def ñàkke ko sëriñ Muntaxa secteur bu am jafe-jafe ak i problème ñu ñuy xaaña door dóor a ka nga war a woo ñooñu pour ngeen waxtaanee jafe-jafe yooyu nga dem tuddee ko xalifa guleet mosu maa gis benn kuréel bu am jafe-jafe bu toll ne bi daara am nii ñëw ne dañ koy waxtaani dem tuddee ko nit sëñ Muntaxa kay bu fekkoon dañoo woote bis bu ñuy sargalee ndate rek tuddee ko ko yàlla na loolu war ma la goo ko jox ndax sargal rek waaye dañuy waxtaane toog ak tab ministre bi moo ko wax ci làmmiñam dañuy waxtaanaale jafe-jafe yi daara am président ñëw toog déglu leen ñett waxtu ñu wax seeni jafe-jafe président après jël ay dogal jël décret maanaam président daal waajal na bigam ak fooyam di waajal jël décret bu dégloo sëriñ daara yi nga xam ne ñoom ñoo dem wuy ko nee nañ wax seeni jafe-jafe ba noppi nga toog ak xalifa bi ne ko bis boobu nga xam ne ci la gaañ yi waxee seen jafe yow moom laa la tuddee yaaka ñàkk war ma jëme ko ci kilifa googu man looloo ma ci looloo ma ci yéem lool ñàkk war ma googu noonu la mosuma koo gis ci senegal secteur transport am nañu jafe-jafe dem toog ak ministre ba ñu waxtaan toog président waxtaan mosuñ koo tuddee ma sàmba mosuñ koo tuddee ma demb secteuru santé bi yàgg nañoo ami jafe-jafe dem togg ak ministère ba ministre ba ba président mosumaa dégg ñu tuddee ko kenn hmm? ak secteur yu bare bari ci Sénégal am nañuy jafe-jafe ñu dem di ko waxtaane mosumaa dégg ñu tuddee ko Sàmba mosumaa dégg ñu tuddee ko Demba daara daal moom moo ami jafe-jafe ñu koy waxtaane dem tuddee ko xalifa ya te nee na bu jugee ko Touba dañuy dem Tiwaawan ñaari xalifa yi nee la ko président wax pour ñu tuddee leen ko sëriñ Muntaxa sëriñ Babacar Si Mansour ma ne mu ngoog nag yéen a ngi tuddee ñu tedd ñu baax secteur boo xam ne def ngeen fa bon lu ñaaw waaw jafe yi ñuy bëgg a tuddee xalifa bi sëriñ Muntaxa mu tedd mu baax ma sëriñ Babacar Si Mansour mu tedd mu baax mu dëgg mu dëggu mooy secteur bi nga xam ne deux mille deux mille vingt la fa xew waaw la lii xew moor ñu dem déglu ji usa Saliou Thiongaan fii ci Cambérène lañ ko def moo ki ndongoom ci daaraam dellu si. Serigne Saliou Thiongaan. waaw dañ fee fekk xale yi démb daanaka heure bi ñu ngi fi ñëw ànd ak su préfet bu parcelle ak ku ñuy wax Diouf ñoo nga xam ne léegi liggéeyam lépp mooy yàqal ñiy jàng alquran ak waa alquran ànd ak ay policier du ma leen tuddee sax ay policier ndax jëf yañ doon jëf police dëgg war na koy rusa jëf ndax police dañ ko war a former ba mu teey xam lu muy def man na seere situation waaye ñi fi ñëwoon démb ñoom sax dañuy créer ay situation euh, ñu ñëw jëlee fi xale yi ci façon boo xam ne façon bu métti bu dawoon yaram ñu toogoon di ko muñ waaye ci ngoon si nag ak ci suba gi dafa am ay xale yu fa jógee nekk jógee ci yeneen i daara dawee ci santar ba ñëw netti li ñi situation yi yee fa xale yi dundee ni mu méttee ñoom ña nekk ci santar ba ñoo wax ne chaque jour dañuy laajal xale bu nekk 1500 mu war a nekk dépense waaye xale ya fa joge ko nee nañ démb benn mbuusu cagri la ñu añee ci guddi gi ak ci ci mburu bu ñu deful dara wala bu ñu def lu tuuti moom la ñu reeree tey daanaka ndékkiwuñu ay une heure lañ doog a mos tuuti kon nag ñuy wax état bi na ko lii mooy responsabilité am lii moo ko responsabilité parce que ñi fi ñëw démb ay samba booy lañ yoo xam ne nii yàq rek moo leen tax a jóg te moo leen ngemb si loolu kon nag lépp lu dal xale yooyu na xam ne mooy responsabilité bi di wax wayjuri xale yi na leen fii la ñuy xamee nag gor métti métti ci li ñuy xamee gor fii la ñuy xamee ñoom lan la leen alquran jaral fii la ñuy xamee ñoom lan la leen seen diina jaral fii la ñuy xamee lan la leen seen doom jaral bu fekkente ne yomb-yomb moo taxoon ñu yóbbu seen doom ci daara ak sëriñ daara yëpp bu fekkoon yomb-yomb moo tax ñu seere seen i daara nañu xam ne yomb-yomb jeex na bu fekkee yàllaa leen taxaw na jog nag nañu jël seen bakkan jaay ko yàlla luñ ci góobee ñi gar ko waaye coono bi nga xam ne nii nii moom la xale yi nekkee ci santar bi ñun yëgoon nañ bu yàgg-yàgg-yàgg ne métti na ndax man wax naa ko depuis ay xati xati nii mu ngi koy wax am na xale yu fa dawee nag fexe nañ ba gis ñooña waxtaan ak ñoom ndax ñoom dañuy wax ne daar yi dafa métti moo tax xale yi daw di tumaranki ci mbedd mi may wax mboolem santar boo xam ne wóolu nga ne neex nga na nga ubbi sa santar diggante suba ak ngoon ba xam xale yi daañu fa yend wala duñu fa yend daara yi de du ñu tëj seen buntu waaye santari yi boo dem ñu ngi ko miiré ba mu gudd ñiy tëj bunt ba ut gardien te xale yaa ngi ut fu ñu jaar di génn xale bii foofu la jógee ko nee na xale yaa ngay yooxu xale yaa ngay jooy waaye lii na bu mu yóbbu benn fitu wayjur bu mu yóbbu seen teey nañu xam ne état bi mooy responsable ci lii xale bu fa dee xale bu fa torox ñoom la ko yàllaay laaj te ñu xam ne doole yàlla rek moo ko am bu ko defee xale bii bu mën nañ koy laaj mu netti tuuti si la mu fa gis alam euh, yu ñaaw mooy yow ay nit ay mukalaf ay ñu mat euh, ay kilifa jël seen i doom ngay seen mbokk yàlla dénk leen bu ñu juree doom nañ ko jàngal alquran yar ko yow ngay seen mbokk ñu gis sa yar ak sa xam-xam mu doy leen ñu jël seen doom bëgg mu mel nu baax ni fi mag ñi jaar baax ñi jaaree woon ñu jox la ko ñoom na ñi ñëw fii yow miy responsable boobu ñi lay toroxal ci sa biir njaboot di fëgg bunt yi di ko dajji yet bii ma yor moom lañ doon dooree xale yi démb yet bii ndaw si moo ko jël denc ko yet bii lañ doon doore xale yi maa ngi seediloo président Macky ak gouverneur ak procureur na leen yet bii la seen police yi yoroon di ko door doomi jàmbur yi nga xam ne téereb yàlla bi la ñuy jàng tooñuñ defuñu dara seen kër lañ leen fekk ñu ñu toog fekkuñ leen ci mbedd mi ñi leen di dóor yet bii di leen dugal ci ay oto te lépp lañ doon wax ne dañuy bañ rassemblement démb la loolu lañ def xale yi santar yi ñu yóbbu xale yi ne duñ fa rassemble rassemblement fa nekkee xale yi fa fanaan yóbbu tey kenn sangu fi te xale yi bi ñuy nekk fii kenn ku nekk dafa yoroon jàmpeem ak saaboom di sangu responsabilité bi dañu dañ ko topp ak moom ba fu mu neex. mais oustaz ce que yëg ngeen ne tey am na benn gone taalibe bi nga xam ne dafa amee feebar bi ca waaw information léegi ñun buñ ko déggee balaa ñu koy gëm dañ koy vérifier ndax information yi jëm ci daara lu si gën a bëri si journaliste yi duñ ko segg daf leen di ñëw rek ñu jàllale ko nam leen ñëwalee am na ñoo xam ne sax dañ cee yokk. waaw depuis weer a ngi nii ak lu teg jàngoro ji mu ngi fi mu ci réew mi dalul taalibe dalul kenn taalibe kenn rek si nit ñi bu dogalu yàlla ñëwee ne dana dana xam taalibe bu des si feebar bii bu dogalu yàlla ñëwee ne dana am taalibe boo xam ne feebar bi dana ko jot fu mu mën a nekk dana ko dal ñaata nit la fi dal te duñu ay taalibe ñaata nit ñoo fi dee te duñu ay taalibe ay patron ay milliardaire ay millionnaire la fi feebar bi di rayaale mu ngi doog a dal ci taalibe kon ñu ngi koy sante yàlla taalibe kenn la si nit ñi lii dal nit ñi moo koy dal bu fekkee dañoo bëgg a aar marché ba nit ñaa jëlee jàngoro yi dafa daje nañ ko tas barab yi nit ñi di dajelee bëri na du daara rek daara benn famille bu nekk ci biir kër ni nit di génnee daara noonu lañu amee soxla di génn nit ñi ñaar rek di génne soxla ak ñàkk pexe wala wëkkirlu si yàlla taali bi itam soxla moo koy tax a génn ak baxee boppam yàlla taali bi bu feebar bi dal ñu ngi koy ñaanal mu wér waaye dal na ay millions yi nit rey na ay millions yi nit doog a yegg ci si moom kon nag loolu nañ ko ñaanal mu wér waaye jombul benn taal ñu ngi ci ñaan na mucc si waaye même état bu fekkonte ne dafa bëgg a xaar daara yi du jiital juuf ñoo ko bàyyi ndax juuf ñoo ko bàyyi amul hitte xaar daara li mu am hitte mooy toroxal suñ daar ak kuy jàng alquran kon façon bi ñu ko defee yoon nanguwut ko ngor nanguwut ko xel nanguwut ko la deux fi njëkk ñëw la deux lañ biñ fi ñëw waa santar gindi rek ñoo fi ñëw dañoo ñëw gaare seen kaar rek waxal yi ne leen raxasu dugg ci oto bi ñi génn xamal leen ne leen mbir mi wartu demee noonu ñi waxtaan bëgg ngoon jot déggahuñu ñi delluwaat démb lañ fi ñëw ak seen doole jooju kenn mosul fii ñëw fii ci daara ji fekk ma fi wala mu fekk fi responsable boo xam ne nettali nañu ko ne état mos na fi yónnee ndaw pour mu waxtaan ak sëriñ daara ci wàllu feebar bi. loolu moo am nga ci ñu ñu jëlee fii démb. waaw bokk naa ci kay. ci yéen anam lañ leen fi jëlee. gars yi dañuy ñëw man man dañoo ñëw fekk ma si néeg bi ñëw fekk ñu si néeg bi daal ci bunt bi génn leen ñu génn ñu ne fan lañ jëm ñu ne ñu santar ba nga ñuy dem ñu génn ñëpp dàq ñëpp man fu nekk làqut naa ko si kër gi bu ma duggee ñu ñëw fi génne ñooñu ñëpp dañuy génn kër gi daal ci bunt yi léegi bañ paree ñu jël ñu yóbbu ñu santar ba waaye bañ demee centre ba man li ma gën a naqari centre ba mooy booy démb si bëccëg leen fa dem ba tey si bëccëg ñaar dagg mburu moo dugg seen biir xoolal loolu yow te booy ba nekkee fi chaque jour dañuy lekk fu ñu bëgg dem dañuy dem dañuy lekk dañuy naan xamul leen loo xam ne manqué na de te léegi ñu dem centre ba yow démb ba tey léegi nii boo demee es bi añaguñ ba maa yow yow yow lan nga man loolu laa fa lekk lu ma la wax nii loolu laa fa lekk man mën naa ko muuñ waaye booy mënuñ koo muuñ xale yu ndaw xale yoo xam ne ay comme saar gi gi lii lii baaxut daaguna sax nga jël booy booy bu ndaw di ko def si di ko teg foofu noonu di ko teg natt googu xàq boobu xamoo foo ko jëmee. léegi yow doo nga daw si man daw ma man dama taxaw wax leen li ma am si at dañ ne borom 18 ans yi kenn du fa toog ma amuma 18 ans ñi am naa 18 ans ëppale naa ko sax ñu libéré ma bañ ma libéré nag ma ñëw waaye lenn nag xam naa ko moom fekkee ne ni lii rek lañ nar a dund rek booy yi nële booy yi moom daañu dund naqar boo xam ne bu kere yowmal xiyaam bu ñu yàlla àttee dana bëri ñu sonn. amul yeneen xale yi fa ba may ñëw nag dama kaa bañ ba yëglu ma leen ndax dama xam ne am na noo defee su ma la yëglee mën nañuy ñëw te bu muy bu ma bu ñuy ñëw problème mën na fa am problème yoon moo tax yë yëngu yëngu yëngu kiiwu ma leen ma leen. waaw kii kenn la ci sëñ daara yi nga xam ne am na jafe-jafe ci daaraam ñu jëli ndongoom yenn jël leen yenu yóbbu ci centre. nee na ñooy boobu Covid ba moo taxoon ñu def li ñuy def te amul programme zéro enfant dans la rue dañ ko lancé avant Covid lañ ko annoncé annoncé kon avant Covid Covid ba ñëw ñu layoo ne Covid bee tax pour ñu koy def te loolu wérul kii ñu dem ci daaraam jël fa ay ndongo ñu mag ña bokkaale ci ñu yóbbu leen ci centre centre bañ dem daara ja dàqal leen ko ndax dañoo dem ci centre ba ñu leen di dox ay caag rek ñuy lekk suuruñu mag ña tëb miir ya daw delluwaat ca daara ja te centre ba xale yi ñu doon yóbbu xoolal chaque jour ku ne ñu fayal la 1500 <laughs> te boobu noonu lee boo jëloon cinq cent warlul ko sëñ daara bu nekk chaque jour ay ndongoom toog ngay mën a fay centre chaque jour ku nekk 1500 ndongo bu ne nga fayal ko mille cinq cent ñu téye ko ci centre jële ko ci daara ndongo ya daal di daw ndax lekk yu bon yañ leen doon jox ak condition ya ñu nekkoon ca centre yooyu ñu daw dellusiwaat ci daara ji. ñu ne ah gannaaw da ngeen a daw rëcc nag léegi bu ñu ñëwaat ci daara ji force la ñuy ñëwee ñu ñëw ak seen i bis taxawal takk deere ñëw ñenn ca ñoom yor ay yat ñu jàpp ndongo yi di dóor am na ci ko xam ne ci toilette ba lañ ko fekk daj porte ba yanu yóbbu jëf ju ñaaw jooju noonu le nee nañu ñu ngi ko tuddee suñu xalifa yu tedd yu baax yi waaw jafe war a waxtaanee jafe-jafe yooyu waaw damay damay damay damay waat mbir yi rek ngeen xam gravité tuddee lu mel nii jafe-jafe ñu war a waxtaanee nee nañu ñu koy tuddee kilifa yu tedd yi ñàkk worma gi ñu ñàkkee ma kilifa yu tedd yi bii benn la yu bari dafa dox ci diggante bi su ma naree topp benn benn mën naa ci def daanaka ñeent émission keroog am na yu bari wax naa ko ci émission daayira ba mais tey gannaaw dañuy dugali élément ñu dégluwaat beneen élément waaw bii ma nga xewe woon fële ca waaw ca daaray oustaz Euh, Taaha Ñeng waaw mooy sëñ daara bi nga xam ne nii demoon jël ay ndongom ak yeneen i ndongo mu dem di xëxëtloo ko jëli ndongom lañ ko jàppee dóor ko ba toj bët ba am na benn waxtaan moo ci defoon ñu dégluju ko dellusi danañu jëlee six mille et quelques xale ci mbedd mi te mooy six mille et quelques taalibe te firnde bi mooy mi ngi nii jàpp ñu benn xale bu dul ay taalibe Oustaz Taha Niang mii ay ndongoom génn ak sëriñ daara yu bari sëriñ daara bii ñu jàppoon jël ko monate ko tey jàpp ko pes ko ay ndongoom ba léegi ñu ngi leen téye léegi la ñuy wax naan bàyyi nañ leen bàyyi wuñu leen te loolu mooy li ci mujj ñun semaine bi yëpp ñu ngi wër ci këru diine di leen informé am na ci ñoo xam ne nii fukki xale benn Ibrahima aaw da nga géejawaay fukki taalibe benn jël nañ leen ji leen waaw ku génnee budget wu 15 milliards mën ko dugal ci ne ay xale da leen di jëlee ci mbedd boo ko dugaloon ci ci daara yi kon taalibe yi toog bañ a yalwaani kon li leen tax a jóg du protéger xale yi mais xeex alquran la nday Sali Diop Dieng nday Sali Diop Dieng Grand Dakar gii la dëkk këram a ngi ni sëruyul kër Assa Taha Ñang nday Sali Diop Dieng bu fekkoon ne li muy wax ñor na ko ne day protéger xale yi waa bay ci say oom la charité bien ordonnée commence par soi-même nga ñëw fii ci daara ji mu fekk fi taalibe yi jàppale leen ba duñ génn yalwaani waaye mi ngi fii dëkk ci koñ bi xam na Oustaz Taha xam na daara ji defuñ fi tus luy tax taalibe yi toog saraxatoo gu ma ne doo ko bàyyi yalwaanam mais léegi ku bëgg a jàng alxuraan te néew nga doole nooy def amoo loo fay internat nooy def mais maslaha bi lañ mën a def mm-hmm. mooy il faut que suñuy taalibe dañuy génn yalwaani dëkk bi ñeneen ñi mënuñoo am droit yalwaan suñuy taalibe amuñu droit yalwaan dañoom gouvernement bi ñuy yalwaan kat yu mag yi gouvernement du Sénégal day dem di jëli ca bitim réew ay ndimbal ak yi dañuy dem di jëli ay ndimbal ONG dañuy dem di jëli ay ndimbal mënuñoo wax ne ñooñu valable nañ pour ñu jëli ay ndimbal ñu ne ñun duñu ay ndimbal jëmmal xeex yalwaan mooy xeex alquran Sénégal ñun protéger wu ñu benn xale bu nekk ci mbedd mi 24 heures sur 24 bu leen ñooñu taxee jug nañ dem jàpp leen mais du ñu nangu na ca biir ñooña taalibe yi génn di jugee ci daara yi di yalwaan yi di delluwaat ñu ne du ngeen fi amee dana fi amee tey dana fi amee suba. te lu mu leen jaral jaral nañu mboolem sëñ daara tey amul couleur amul fédération du rabita du majalis du madaris du waxdatul kataadib du aar daara ñëpp jug ni Oustaz Taha mii ñu dóor ba toj bëtam sëñ daara yëpp lañ toj seen bët ah, ñun ñëpp lañ dóor ñun ñëpp lañ agressé loolu na leer suñu xalifa généraux yi nañu yëg ne seen njaboot gi ñu dénk daara yi ñoom la ñu toj seen bët ñoom la ñu agressé laanatullahi alayhim ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla rëbbum yàlla tam ci kaw ñi nga xam ne ñoo doon toj salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, asalaamaaleykum dégg ngeen ko noonu euh, li indi jée ji benn mbokk daaraam bu mu nekkal kuñ jàpp ay ndongoom moom ñu jàppaale ko euh, monate ko yeew sëriñ daara ba ba noppi tëgg comme pes oustaz Saha bi mu gisee jëf ju mel noonu yenn yañ doon def ndongo ya mu mu dem fippu xëxëtloog ña nga xam ne ñoom ñoo doon bëgg a yóbbu xale yi ci takk day ak ñeneen moom ñu jàpp ko dóor ko ba toj bët ba boobu am na ko ñu doon tuddee rawul ci jamono yooyu latuf rawul moo daan jiite opération boobu noonu la nekkoon ci euh, centre yooyu noonu la rawul léeg-léeg yenn plateau yi moo daan dem di toog te biñ ne ko rawul attention doo raw ñu doon wër naan waaw dañuy menacé waateeg nangam rawul tey mi ngi ci biir suuf rawul moomu jiite woon opération yooyu mi ngi ci biir suuf tey Oustaz Taha bii jëf ju bon jii ñu ko def lii ci jafe-jafe yi daara dund la ci at yi passé jafe-jafe yi ñu ne dañ koy tuddee xalifa yi waaw dégg ngeen ci biir maa ngi tudd ñu ne dañoo génne quinze milliards dégg ngeen ko ci vidéo bi ba tey ci éléments yi dañuy déglu ji ñoxo baay juuf benn waxtaan bi nga xam ne mu ngi ko doon amal ci benn euh, média fii ci média wu réew mi di wane deuxième phase bi maanaam deux mille vingt la ñu tàmbali programme zéro enfant dans la rue deux mille vingt ndax boobu la Covid bi euh, tàmbali woon dugg Sénégal ak ni mu ñëwee ñu raaxaloo ci Covid bi ne dañuy protéger xale yi ci feebar bi ma dellusiwaat tuuti leeral ci loolu am na ñu seetaan toon vidéo bi ma ci def Ndeye Saly Diop Dieng moo taxaw fële ci assemblée nationale ne gouvernement bi dafa jël dogal pour ñu war a lancer benn programme bu tudd zéro enfant dans la rue. mooy xale yi ci mbedd mi mbedd mi du seen place slogan bi seen slogan loolu la woon xale mbedd du palaasam fu ñu toog wax ko ñu ne ah wax dëgg loolu moom dëgg la xale moom mbedd du palaasam léegi ñun ñu xam ne euh, taalibe yi leen tax di wax sénégal yu bari comprendre ñu ko pour ñoom ñi ñuy gis rek tout le temps ñu nekk ci mbedd yi 24 heures sur 24 du ñu jàng ak xale yi buujumaanee gi ñu mel ñooñu leen yaakaaroon ñu tàmbali programme boobu ci biir Covid bi. fekk yenn sëriñ daara yi ci seen biir daara jël seeni ndongo yanu yóbbu ci force wax naa ko keroog ne sama première plainte ci sama dund ba ma juddoo ba tey mille vingt lañ ma ko plainte su weesoo bu waali sekk ba ba ca topp nga xam ne moom citation direct la mais lu tudd plainte jëm ci Makhtar Sarr mosul lu dul benn yoon ci nguuru président Macky Sall ci ayug Ndeye Saly Diop Dieng ci seen centre bu tudd centre Gindi ka ko jiite woon di may a Balde jamono yooyu laa defoon vidéo ne ku ñëw ci sa daara ne dañuy jël say ndongo te joxuñ lay këyit yu wane ne ñoom ñooy ñii wala ñooy ñële ut leen yat mu dem ne man maa ne mu dem sos ca fa dikk moom euh, ndaw soosu di may a Balde mm, sos fa ne man maa ne fu ñu gisee seen oto yi nañ leen toj man maa ko wax bi ñëwee ci loolu lañ ma doon entendre ndax yaa wax ne nañ toj oto yi yaa wax nañ jël yat ma ne maa jël nañ jël yat laa wax waaye nag na ma wax fan laa waxee nañ toji oto ñu nekk dugg ci question bu nekk ñu dugg ci laaj ma ma tontu ci la may tontu yëpp jamonoy jamonoy couvre-feu euh, bi may jógee dikk vingt-trois heures quelque minuit moyen daanaka minuit sax bi may génn dik minuit jot na ci guddi ci dix-sept ba minuit commissaire dig bi boobu boo génnee oto yi dawuñu keroog sama avocat ak man yëpp ku nekk moo la déposé ba sa buntu kër ñaan ma ne jaruloon ñu cee wax ak nangam loolu noonu le période boobu loolu di xew ñu may porte plainte noonu yóbbu dikk période boobu fekk na moom la ñu tàmbali programme jël xale yi di leen retiré tey ñiñ ci doon jël ñenn ñi ci biir daara lañ leen di fekk ne condition yi ñu nekk nii baaxul école bi daal mën nañoo nangu condition yu bon ñay jàng école ba nekk fa seen abri provisoire yi mi ngi fi ñu ngi koy gis Sénégal mi ngi ci juróom benn junni abri provisoire ak lu teg six mille et quelques abri provisoire xale yoo xam ne nii bu ñu lalee ci suuf toog di jàng baax na bu ñuy jàng dara tiimu leen baax na bu ñuy jàngee ci ay mbaaru gattax baax na bu ñuy jàng dara waru leen baax na léegi ñu ne condition yu baaxul ci daara yi lañuy jëlee xale ya bàyyi seen abri provisoire yi loolu yëpp ñu jóg doon ko dénoncé ca loola la ñuy doxee di dox di dox di dox maa ngi gis léegi ci archives yi ci archives yi ma yor am na benn sëriñ daara bu tudd sëriñ Ibrahima Ndaw géejawaay la dëkk tournal sëriñ Assane mercredi 24 février 2021 24 février 2021 lañ jàpp fukki taalibeem ak juróom-benn yóbbu leen ci centre yi sëriñ Ibrahima Ndaw géejawaay tournal sëriñ Assane mercredi 24 février 2021 juróom fukki taalibi mag juróom-benn man lu may wax ci daara damaa yor samay archive lu ma ciy wax wala vidéo bu ma ci dégg wala nangam gu ma ci am wala document am na fu ma ko denc foo xam ne fii ba fukki at ci kàttanu yàlla ma fi yàlla bàyyi loo ma ci laaj ma génne ko loo ma ci laaj ma génne ko ndax ñor gi ma ñor waaw bii ci deuxième phase bi la 2021 bi deuxième mais première phase bi ci la mbirum Oustaz Saliou Thiongaan yi xew gannaaw li ma wax noonu ba mu weesoo Oustaz Saliou congaan ci daaraam lañ ko fekk def ko jëf ju mel noonu ba yegg si ci Oustaz Taha Niang mii Oustaz Taha Niang bii ci deuxième phase bi la mais première fas bi nga xam ne nii ci lañ doon defee li ñuy def ba tax aar daara juddu aar daara bi liy xewee ci Oustaz daara euh, Saliou Thiongaan fekk na boobu aar daara juddoogul 2021 la liy xew fekk na aar daara juddoogul wala 2020 bi ñu demee nag di ramas ndakaaru daara yi di yóbbu ci centre yi ay fan ñu yenu yóbbu ñaata milliards lañ jël def ko ci lu mel noonu ci yàq yàq ak ay nit riisee ci nga xam ne nii au lieu que ñu jël loolu injecté ko ci daara yi déedéet ñoru leen mais jël ay milliards teg ko ci loxoy nit ay centre profito ci yor sab centre rek ñu dem jàpp ay xale bu ñuy ramasser bus la ñuy jël léeg-léeg bus tata yooyu lañ daan jël yu mag yi policiers yi dugg ca ñu jël tali bi dañuy dem ba ci benn bopp kon ñu taxaw te ramas bi duñ ko def guddi de su fekkoon nañuy bàyyi ba guddi dem fële na le ca euh, euh, nu ñu koy waxee place de l'indépendance da nga fay dem guddi vingt trois heures fekk xale yu ne ay taalibe lañ yor pot su doon ñooñu la ñuy ramas kenn du ñu dégg deux heures ni matin ngay dem fële ca casino ba ca casino ba ca almadi fekk fa ku yor pot ne taalibe la di yalwaan buñ doon ramasse ñooñu kenn du wax de waaye dañuy bàyyi ñooñu duñu leen wax dara bàyyi ba 9 ci suba ñu dem taxaw yoof yor seen bus xaar ba ay xale génnee ci daara ñu xam ne daara jëlee la génnee ñu ñëw ne ko kaay jël sarax mu ñëw ne day jël sarax ñu yenu ko yóbbu yóbbu ko ci centre yi benn xale bu ne ñu fayal ko cinq 1500 téye ko fa ay fan chaque jour mille cinq 1500. luye oto yóbbu ko ci centre ba fay centre bi mu téye xale bi nga luyewaat oto mu yóbbu ko xale bi bu dëkkee ba Casamance da ngay luye oto bu ko delloo ji Casamance ñu yàq ci xaalis bu dul jeex ñu bari bu ñu leen delloo tey suba ñu siwaat ndax nee woon nañ loolu moom mooy stratégie bi pour xale yi ñu war leen a jëlee Ndakaaru te loolu mooy waxoon naa leen ko jamono yi da ngeen di root di sotti ci tame ñu ngeen yóbbu danañu dellusiwaat moo tax bi ñu essayé ci première. première opération bi ñu échec ci nanguwuñ ne nag dañoo échec ñu ngi doon wër di annoncé ne waaw récupéré nañ ci euh, xale yi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbedd mi nangami mille léegi nag war nañoo jàllaat ci deuxième phase bi deuxième phase bi ci lañ doon ndamoo euh, waaw am na benn journal Le Devoir defe naa la tudd enfance Covid 19 euh, urgence nationale la tiitiree woon euh, la tiitiree journalam boobu def photo Ndeye sali Diop Dieng ak benn photo taalibe ci biir page cinq bi ñu ne lu mat cinq mille enfants juróomi junniy xale jële nañ leen ci mbedd mi maanaam juróomi junniy xale mooy juróomi junniy taalibe jële nañ leen ci seeni daara di ko ndamoo bi loolu amee ci biir première opération boobu noonu la bi ñu jógee koo Ndakaaru fii ci lañ jàll nag dem ba Casamance ci àll Casamance ba am ñaari daara yu fa nekk bii di abi samxuun bii di daaray faas nga xam ne ñoom ñi ngi bokk ci waa jaamali jaamal ni mu nekkee dëkk cosaan nekk nekkee ko dëkku daara nekkee ko dëkk alquran yaatuwaayu daara ja moo jur am ñu bokk jaamal amatuñu suuf suñu def daaraak seeni ndongo fu ñuy bayee fu ñuy bayee ñu jugee koo jaamal fee ca Saalum dem ba Casamance ca àll Casamance ba aar daara bi daara ja lakkee dem na ba foofa ca daara ja doon leen yóbbul ndimbal lam leen doon yóbbul keroog bi ñu fay dem dañoo yéemu ci yàlla naka la aw nit mën a néegee am xol bu bon ba mën a fekk nit ñu dëddu àdduna ñii ci àll bii nga xam ne foore la fa daara ja nekk daanaka benn foore la ci ay ñax ngay romb ay garab yu baree bari di daw di daw ba yegg ci dëkk boo xam ne nii dañoo gor gor ay garab ay ñax ay gajji ba am seen àll tabax fa seen daara toog di bay di dundee di jàng alquranul karim gouvernement bi ak seeni ndaw jóge ko ca Sédhiou ak seeni élément yu encagoulé wu encagoulé wu encagoulé wu ñëw mel ne kuy dem ci guerre yor seen arme laa ilaha illa dem ca daara ja ramaas xale yeñ fa fekkoon yépp traumatiser leen ñiy jooyoo fële ñu yenu yóbbu seeju daw ay kilomètres yu bare baree baree bari yóbbu leen ci benn école bu nekk foofu téye leen fa bi ñu jotee loolu ñu annoncé ma ko ma wax ko ci télé bi ci laa ne nag ah jub jot na loolu moo tax aar daara juddu mooy jëf ju bon ju ñaaw jooju ñu defoon daara ji nekk ci abi samuxun ak faas ca Casamance ci laa jóg woo ñi may woo ci kuréelu sëriñ daara yi ñu ko jiite woo ñi ma xam ñu nekk ay doomu daara woo sénégalais yi nga xam ne nii seen diine ñor na leen ñu bëgg daara yi sax fi ci lañ leen woo ñoom ñëpp ñu dajaloo loolu moo tax aar daara juddu ñu def sunu daje leeral naa ci keroog la ma cay leeral le treize ca parcelle wax ak gouvernement bi sàkku li ñu sàkku kon na ci li ñu sàkku mooy ndey salis yu jóob jeng mi nañ ko folli ñu jógee ko parcelle dem Koungheul jógee Koungheul ñëwaat Kër Massar fu ñu nekk suñu des discours ndey salis jóob jeng nañ ko folli remaniement ministériel am na ci diggante bi diggante deux mille vingt ak deux mille vingt et ñu doon xaar ne président dégg na suñu càkkutéef dana folli ndey salis jóob jeng mu falaat ko defaat ko mu nekk ministre ñu jël budgetam yokkalaat ko ko yokkalaat ko budgetam léegi nag gannaaw biñ ko falaatee mu toogaat toogaayam bu dëgër nag ñu yokkal ko budgetam ñu yëkkati quinze milliards teg ko ci taabal ji nañu déglu ñoo ko bàyyi Diouf nañ ko déglu bi muy leeral première phase beek liñ ci dépensé wala liñ ci dugal ci deuxième phase bi nga xam ne quinze milliards lañ ci dugal nañ ko déglu mu leeralal ñu quinze milliards yooyu ak li nga xam ne moom lañ ci naroon. ñun ñëpp ak seen i naataangoo partenaires li nga xam ne tey dañuy jàppale gouvernement bi si liggéey boobu ñu ànd si kaw boobu taxawal benn plan boo xam ne tey moo tax euh, bépp gouverneur si région da ci si tënku ci benn bataaxal boo xam ne madame la ministre euh, moo leen koy jox ne leen nañ si liggéey ak seen i quarante cinq département ñeent fukki département ak tey am nañ comité départemental de protection de l' enfant kooku défi la boo xam ne ñun dañ réaliser si deux mille vingt bi tax am nañ ko ñooñu nag kenn ku nekk sa ak euh, say ñooñ yéen a ñoom ñoo organiser xale yi nga xam ne tey jii dañ doon taxawal si mbedd ñu récupérer leen ñi nga xam ne tamit dañ leen war a jàppale ñu toog parce que ñu woon si ay anam yoo xam ne seen sell na mais dañu ñàkkoon doole ñu jàppale ñu taxaw waaye ñi nga xam ne war a delloo tamit seeni i waajur ñoo si ñu delloo leen ba mu ko defee tamit gis nañ ne lu toll si juróomi junni ak euh, ñetti téeméer ak fanweeri xale jot na leen génne si mois de mars ba si mois de novembre bi. yooyu tamit kenn ku ne bi ñu jëppal jébal say waajur tamit si euh, ay anam yu sell am na lu ñu la boole loo xam ne moom moo jàppale. ñu ne nag comme phase boobu jeex na tey. te euh, mbir mi daanaka dafay laaj ay moyens yu bari moo tax président de la République euh, si performance mooy PAP deux bi deux ans bi lu mat euh, fukki milliards ak juróom yoo xam ne daf ko jegleel jàppale njaboot yi jàppale daara yi waaye tamit jàppale xale yi fexe dafa leen di delloowaat seen ak ñooñu di wër si mbedd di di yelwaan ci taxawaalu ak fu fu xam ne foofu lañ mën a jógee. si euh, programme boobu dañu ne nañ tàmbalee Ndakaaru madame la ministre waxtaan si ak gouverneur région de Dakar mu dajale ñeenti préfet yi nga xam ne ñooy si région de Dakar Dakar Pikine Guédiawaye ak Rufisque Tëngéej préfet yooyu kenn ku ne nga taxawal benn plan d'action plan d'action yëpp pour un an la mais dañu ne nañ ko njëkk jël ñetti weer yi diggante mois de janvier ba mois de mars xayma nañ ne ñeenti département yi war nañ ci lu mat juróom-benn junni ak euh, ñeenti téeméer xale yoo xam ne ñu ngi taxawal. waaw kii di wax ni moo doon directeur protection des enfants Ñoxo Baye juuf <laughs> moom it jamono yooyu turam si woon na lool waaye tey kenn déggatu ko ndax folli nañu ko waaw kenn déggatu ko ndax folli nañu ko ak yeneen yu bari nag moom fi tam yeggoon na ci ba muy wax sëriñ daara yi ne dañuy dajaloo ne dañuy ñaan. su fekkee mën nañu dara nañu ñaan Covid bi jugee fii xawma ma lan lan yenn mbokk bi ñu ma ko yónnee ma ne ko moom kay mbir yi lu simple la na wax ne rek moom mu fekkee mën nañ dara moom nañ ko ñaanal moom ñu xool ba xam ndax mën nañ dara wala déet maanaam seen yabaate demoon na ba yegg ci ne ñun bu ñuy ñaan sax seen ñaan yi jëriñul dara <laughs> waaye après mois de mars bi waxatuñ ko de. Mhm. dama leen jox rek ay ay kele pour ngeen xam problème yi nga xam ne nii moom moo bari nii bañ naan euh, dañuy waxtaanee problème mu daara yi nga xam ne nii lii lenn la rek ci jëf yu ñaaw yu bon yu métti yu ñu teg ñooñ daara quinze milliards yi biñ ko dugalee <laughs> laa ilaha illa allah ni mu ko waxee dañoo mobiliser gouverneurs yi préfet yi procureur rek ñëpp ñu dugal leen ci biir ne nag léegi affaire bi il faut nag ñëpp dugal ci seen loxo démembrement état yëpp faaw ñu jug pour nag sëñ daara yi ñu taxaw jëmmarloo ñu fekk na boobu noonu la aar daara jug na di def ay tournéem di wax di kaas waaye ñoom ñi ngi teg fi ñu teg seen loxo mu dëgër rek di appuyer di bës période boobu noonu lee bu fekkoon ci la président woote wala ministre bi wooteel ko suñ daara dinañ sawar lool ci wuy ji ndax soxla woon nañ ko ndax fu nekk ñu ngi ko doon jooytu waaye boobu boobu ñoo ñu jekk woon lànk ne duñ ñu faale am na ñu jege woon Ndeye Sali Diop jàng bi ñu ma wooyee ne waaw Ndeye Sali xam nga lii muy def nii nit ku baax la man leen gëm naa ko di waaw dana président moo ne ko bu jëlewul xale yi ci mbedd mu dàq ko mu ne ko loolu moom président la di moom ci rôlam la nekk ñun tamit ci sunu rol la ne lañu nekk waaw moo tax moom tamit ndeysaan yàlla na ko yàlla dimbale sonnoon na ci lool moom it waaye daal faaw mu def liggéey bi ndax dañ ko ko sant mooy xale yi taalibe yi yalwaan daal force danañ bàyyi yalwaan loolu moo jur mbir yi ñu accéléré waat li ñu jàpp ci ay taalibe li ñu tëj ci ay daara li ñu delloo ci ay ndongo dégg ngeen ko ci biir audio bi mi ngi ko ci wax cinq mille et ndongo moo doon seen objectif ne nañ atteindre nañ ko juróomi junniy taalibe lu topp imaginel ñaata daara nga tas te ñu nekkul ay xale yu buujumaan yi ñu bàyyi ci ron pont Colobane yi ñu bàyyi leen ci ron pont Grand Yoff de mais xale yu doon jàng téere yàlla bi nga tere leen ñu jàng téere yàlla bi lu mat juróomi junni xale ak lu topp ba noppi nga taxaw di ko bàkkoo di ko nam yamu ca nga boole ñeen ñi nga jël leen jàpp sëñ sëñ daana ngeen menacé leen ba yegg ci violence bi ñu amalee lii bàyyiwuñu benn gox daanaka mujj gi ña nga woon ba ndar ñaata daara yu nekk ndar lañu tas dugal leen ci ay bis delloo leen ca àll fuute ya ci ay sëriñu daara réeral ci ay xale traumatisé ci ay juru ndong daara ba noppi nag bu ñu la yóbbulee sa doom dañ lay signaloo nga signé xale bi du delloote ci daara ji ñu ne la parent bi na koy signé xupp la dem ba toog ci plateau yi di menacé ne bépp sëñ jur bu ñu delluwaat sa ndongo nga dëgër bopp mu delluwaat ci daara ji procureur dana ci jot nangam ak nangam lépp ñun ñu ngi toog di alerter di wax di wax di wax. ñu dem nag bàyyiwuñu deuxième phase bi rakkaaju gu ñu rakkaaju rakkaaju moo indi nag <laughs> biñ jëlee takk deer yi dugal leen ci ndax boobu nee nañ préfet yi dañ ciy bokk gouvernement da ciy gouverneur da ciy bokk commissaire yi ñoom ñooy joxe ordu pour heure bu ñu war a def raafal bi ñooy dugg policiers yi ñooy ànd ak waa centre mu ngoog rawul moom ca biir lay toog waaw ndeysaan moom mooy toog moo yoroon directive bi ndax daara yépp identifier nañ leen yor leen ci benn liste moom mooy jël oto bi dugg ci ànd ak policiers yi ñu dem ba daara sàngam mu ne tey daara sàngam lañ jëm tëngéej li ñu dund ci ay métit ci seeni daara yu ñu tas sëñ daara yi boobu daanaka buntu centre yi mujj gi moo nekkoon fi ñuy toog dañuy ñëw ñu ne daara sàngam tey moom lañ dem song jël nañ ñu ndongam yóbbu nañ ko ca centre ba sëñ daara ya buubaloo dem ca buntu centre ya parce que fa la ñuy yenn boo demee ci centre ba ñu ne noon ministère il faut euh, euh, ministre nangam euh, protection des enfants di la jaarloo fu métti ba nga sonn li ci tëngee dund yeneen i gox ci ndakaaru dundu ko ci waa ba waa Kaolack ba waa Kaolack nañ déglu benn video imam Alioune Badara Ndao yàlla na ko yàlla yërëm nañ ko déglu sëñ daara ñu fi toroxal toroxal ko tëj ko ci kaso dóor ko ci yaramam démb rek bi may dem sama soxna nee na ma fii ci marché Kaolack bii am na fi taalibe yu mag yoo xam dañ leen a jàpp di leen dóor di leen dóor ba am na ci koo xam yaakaar nañ nag ñàkk na bakkanam ku ko woowoon tey ne ko ñàkk na bakkanam du ko weddi ci ngoon gi ñu dellu ma téléphone ne ma am na sëñ daara bu nekk fii moom itam ñu ngi koy yóbbu fële ca fi ñu tuddee Fass Barigo ma téléphoné ko ci guddi gi laa ne may tëdd jotaat information bi mbir yi nag dama ne mu ngi bëgg ëpp waaye lépp ñu na lépp ñun la de suñ ne ñun na xalif général yaa jiitu ca kanam sëriñ saa jiitu ca kanam yirimaan yaa jiitu ca kanam taaliba ya toor door topp ci seen kaw lépp ci seen tur lañ koy def kon jot na ma ne lii ñu jóg xaraat suñu tànk tubéy benn kilifa waratu la nelaw te xeet wi bennoowul benn kilifa waratu la yëg ne am na jàmm te xeet wi bennoowul pour mën a faj xeeti jàngoro yii ndax lii jiwul am réew suñ ne ñu ngi ci coronavirus ñu ngi am ay problème loolu ñu naa wax naa bàkkaar a ko indi ñuy yokkaat bàkkaar encore di ko yokkee ca couche sociale ba gën a supérieur ba suñ borom tànnal boppam lii lu raglu la waxoon nañ fii ca xutba ya passé ne li ñuy dal yépp mooy lañ waxoon rek maa waqaa balaaun illa bi zanb wala rufia bi tawba ñu tuub di dellu ci borom bi tabaraka wa taala di la wan yow sunu borom subhana subhanaka wa taala te ne lii day àndu ñu ci tey àndu ñu ci ëllëg te duñ ci mos a ànd yal na ko yàlla jëlee nag ci réew mi nañ jàmmal alquran nañ jàmmal ñooñ alquran hada wa axiru daawaana an alhamdulillah dégg nga imaam Alioune bu mag bi yàlla ko yàlla yërëm moom it mi ngi nettali ci waxtaanam bi sëñ daar soxnaam su ko nettali romb taalibe yi ñuy dóor ba ku ne ko woon deena du ko weddi gannaaw ba mu euh, ba mu fa jógee mu jotaat beneen xibaar beneen sëriñu daara bu ñu jël daaraam di delloo ji ca faas barigo faas barigo soriwul Kaolack ci ñu xam Kaolack ak faas barigo maanaam lii yëpp ay élément la yoo xam ne dama la koy wan pour wan la jafe-jafe yi nguuru président Macky Sall teg sëriñu daara yi entre deux mille vingt deux mille vingt et lii bi mu amee ak yeneen yu mel nii yu bari li ci mujj nag mooy mbirum Oustaz Taha Niang bi nag ci la nag mbir yi waroon na réglé woo nag mooy vidéo bale ma leen jàllaleel biñ ko dóoree nag ba toj bët bi fii ci la sëñ daara yi dajaloo nag def seen yëfu maam nag waaw delloo si bagaasu maam yi waaw delloo si bagaasu maam yi bi ñuy bëgg a ñaan ndeysaan am na ñu doon def sax intervention sëriñ Salim Mbàkke yàlla ko yàlla yërëm am na yu mel nii yu xewoon ca yàgg na ci jamonoy nguurug Ablaye Wade la woon yu mel nii ñu defoon ko yenn ñu am luñ tegoon yenn daada sëñ daara yi meroon ne dañuy dajaloo ñaan wàcce kaamil sëriñ Saaliwu saraxu leen jooy ne moom du xal du ñaana yàlla fekkee fu ay sëriñ daara meree bay toog di ñaan ñun laataa ñu naan allahuma buntu kër sëriñ bu nekk fëgg nañ ko fu nekk dem nañ waaw fu nekk utuñ ji woon dara nag lu dul suñu ngëm-ngëm rek ak suñuy baax lañ doon sàmm man nee naa am na yoo xam ne bu ma koy wax ci daara wala ma koy ji jëf du ma ci xaar kenn du ma ci tàggu kenn waaw bu fekkoon daara dafay am ku ñaan xalifa day am ñuy doon xalif général pour daara man mën naa bokk ci rang bis ma doon xalif général man pour daara ndax sama maam maam ma Lamine Saara tax ci ñi njëkk a taxawal daara ci Sénégal la bokk ca jamonoy Mamour Anta Sali la woon ci daaraam la ko ceddo yi fekk ray ko ci daaraam lañ ko rayee daraja tuuru ca aliwaam yow noonu jàngalee ndongoom man deretu kooku mooy daw ci sama yaram moo tax am na yoo xam ne ci daara du ma ci xaar ma sàmba duma ma ci xaar ma demba ci la ñu jóg def suñuy baaxu maam bañ ca jógee <laughs> Oustaz Taha Niang bët bi nga xamee ne fa lañ sànni woon xeer bi am na benn policier bi mbir yi yëngu yi tàmbalee benn waay xamuñ fan la toll sànni xeer fa tollook bëtu Oustaz Taha ba fa la xeer ba dal am na image boobu noonu lee ñu koy fàttaliku ci ñi seetaanoon vidéo boobu loolu dañ ko noote woon denc ndax policier ko dóor ba toj bët bi policier lañ sànni xeer même bët bi tojoon même parti boobu noonu la xeer ba daloon ñu note denc bi événement mars yi ñëwee miracle yi ci am ñi xam xamoon nañ li gënoon a fës ci événement mars yi xam nga lan la xeer yu ñuy sànni ak safara suñuy taal te aar daara fu mu mos a dajee ñaari dog la ñuy joxe alam tara yadda la ñuy léemoo jotaay bi soog di tàmbali suñuy discours buñ julee tàkkusaan balaa ñu tàmbali benn déclaration alam nangam ci lim tabar yadaa nangam ci lim te alam tara tarmihim bi xijaaratin moo ci nekk ay xeer yàlla sànnil xeer wala wala tarmihim bi xijaaratin eh, min jiil yàlla yabal na yabal na ay picc yu bàyyeekoo ca safaraw sijil yore xeer di ko sànni gaayu abraha ya mais turu xeer moo tax événement marché yi xeer yi bari ñu naan fan la xeer yi jógee ko yàlla xam beneen bi mooy wa tabba ma agni anhu maaluhu wa ma kasab sa yaslaa naaran zaata lahab naaran zaata lahab tabbat yadaa yàlla ngi ciy tudd safara suy tàkk ku xamul xamul du nag dañ naan waaw ñun rek la waaye tombee na de aka tombee te xamoon nag xamoon nañu nag man dama ko yàgg wax te mooy li ma gëm te mooy li wér dama ne heure bu nu soj loo daara réew mi sëqat jàmmi Sénégal ci loxo sëñ daara yi la nekk loolu na ko ñëpp xam ku ko nangoo ku ko bañ nag moo ci yam lii man maa la ko wax heure boo déggee Sénégal ñu ne la sëñ daara yam mer nañu ña ngay ñaan waajal xam ne ay catastrophe dana tàmbalee xew ci Sénégal lii dama ko yàgg wax bi ma ko yàggi wax léegi fukki at ak juróom mën naa ne daanaka mat na ko heure bu ñu merloo daara am lu tàmbalee xew ci réew mi ci catastrophe li indi lu mel noonu nag mooy ko xam réew mi ak ni mu bindoo waa kay mag ñeeg ni ñu tabaxee réew mi ci jàmmi réew mi daara yi di jàng alxuraan di yeewu fajar ndongo yi di génn di jëli sarax nit ñi di leen ko jox ñu koy def ci seen biir yi di jàngiwaat téere yàlla bi la muy jural ña leen koy jox ak la muy jur ci réew mi ci li sàmm jàmmi réew mi la bokk ñooñu nag bu ne dañ leen koy xañ ci dooleeg yu ni mel ah yi xew rek mooy xew gannaaw loolu noonu nag lañu lañu la ñu riggal waaw la nga xam ne moom lañ yoroon ci budget ñu mujj wër nag di ko séddale nag di jënd ay ceeb ak yooyu di joxe <laughs> ceeb yu bari yuñ doon joxe sarax la rek yuñ leen digaloon du dugg nag ci détails yi ñu leen ko digaloo nag nañ leen ko digalee yu ci bari xam naa lan la woon gannaaw loolu noonu le li tax ñu may jàmm daara euh, jàmm daara waxaatuñ dara ci taalibe yi ñu jàpp yóbbook gannaaw ñaan yooyu la de ak événement mars yi mars 2021 ba tey jàppatuñ benn daara di yóbbu ci benn sëñ daara wala ñu jël ramasse ay taalibe ci mbedd di yóbbu ci centre bu demee nag ba 2022 ba 2022 nguur gi fi nekk at ak lu topp dese dese ko fi am ministre jug ne daf koy woowal sëriñ daara yi pour ñu waxtaan ak ñoom ci ay jafe-jafe jafe-jafe yii de jaar na fi te woowuñu woon baaluwuñ ñu pour ñu waxtaanee wala ñu jéggaluñu ci ay jafe-jafe déedéet waaye ñoom dañoo jàpp ne lañ doon def lu normal la te ñun dañu jàpp ne dañoo tooñ ba léegi métit boobu noonu lañ ñu ngi ko téye ñun ci suñu xol diis ko yàlla toog jàpp sunu njàmbur waaw léegi nga toog ba tey naan da ngay woo sëriñu daara di sargal sëriñ te teewul sëriñ daara yi liñ leen di teg métit li muy métti métti ñu ngi def ay résultat xale yaa ngi gën a mokkal alquran lim baa ngi gën a bari ñu ngi dem ci concours international di jël ndam di dellu si te xaaruñu état ci dara lu mu leen jàppalee ci ay moyens la bëy doon dundee ba sax sikkim mën na cee wéy ba faatu nii ngeen seetaanee daara nii mu mel nii mu mel nii sëñ daara yi di góor góorgóorlu def ay résultat ba fii ñu toll su ngeen wéyee di ko seetaanee daara daara wéy tamit di yàlla di ko yor population bi di ànd ak waa daara ba keroog muy soob sunu borom. looloo tax ñii dem di wuyu ji nañ bàyyi xel ne am na seeni yaayu daara ak seen i baayu daara yoo xam ne ñi ngi taxaw ñoo xam ne ñoo yàgg ànd ak ñoom di leen jàppale ci seeni daara di leen ci gunge ànduñ ci de ànduñ ci te ñii ngeen di dem di leen seeti lu ñu leen mënti jox ak lu ñu leen mënti dig bu ngeen paree yaayu daara yi ak baayu daara yi ñooy wuyaat di leen yor yéen ak seeni i ndongo loolu tamit ñii wuy ji nañu ko bàyyi xel ma waxaat ko terewu ma ma sàmba wuy ji wala ma demba ndax awma benn sañ-sañu tere ma sàmba wala ma demba man maa ne demuma yeblewu ma waaye yéen ñiy dem bàyyi leen ne am na ñu bari ñu mel ne man ci population Sénégal ñoo xam ne ñoo yéen la woon démb ak bërki démb ñoom yéen la tamit tey ak suba ñooñu ànduñ ci seen dem bu ngeen demee ba dellu si yéen ak ñoom la te duñu kontaan ci seen dem ñooñu tamit am nañu droit ngeen bàyyi leen xel ñoom i tamit am nañ droit ngeen bàyyi leen xel ndax yi métti sëriñu daara yi ñu def leen ko dafa métti ñeneen ñu bari ci senegale yi ci yeneen i mbir ci réew mi te réglé guñ yooyu métti leen ba tax na kon yooyu mbokk yi lañu ñu doon indi yu bari la yoo xam ne nii euh, boo ci doon wax fii ak ñett waxtu daanaka du jeex waaye dama doon dellusiwaat rek pour indil leen yi nga xam ne daara dund na ko fi te nag li wér te wér mooy ko yaakaar ne gaa ñii ñoo lay fajal sa jafe-jafe yii nga bàyyi fi sa borom mi nax nga sa bopp gouvernement laïque bi gouvernement laïque bi gouvernement laïque bi du yàgg ba mu fompal daara ronkoñam bal sax wujju lañ ko def li leen ñor seen école yii la moo leen ñor école yi lañu ñu votel budget quarante pour cent ñu jël ko ci budget réew mi def ko ci seen école yii daara waajaluñ ko ci ñaar dërëm yuñ ko war a jox daaray kokki yàgg naa ko tudd exemple la ci biir yi may wax ñeent junniy taalibeeg lu topp ña nga daaray kokki amul tonu ceeb bu leen état warlul weer wu dee di leen ko jox te mu nekk lu ñu bind voté ko assemblée nationale amul ba fii mu toll nii daaray kokki ñen ñoo koy dundal ña bàyyeekoo ca daara ji ñoom sëñ As Ndaw ñoom sëriñ Buub ñoom sëñ Abdou Aziz ak ñeneen ñu mel na ñoom nga xam ne ay ancien ndongay daaray kokki leen ñooñu la leen yàlla dénk ci wërsëg ñoom ña dellu ca daara ja di ko fa def di ko fa def kon ku yaakaar ne gaa ñi am na lu ñu waajal ngir war a régler say problème yaa ngi nax sa bopp yaa ngi koy nax de ku mu neex nag bismillah yoon waa ngoog waaye fi may daanelee nag mooy ñun ci sunu biir ñun sëñ daara yi nañu ànd ak vigilance nañu ànd ak keewuti nañu wattandiku sànnante taraak bi nga xam ne nii mi ngi tàmbali di am ci entre kële wuy ji ak ki wuy jiwul waaw léegi ki wuy ji lan moo ko wax ne ko yow sa problème dafay réglé wu ki wuy jiwul lan moo la wax ne la moom bu demee day jaay daara ja ba tax ku nekk yor sa xeer di sànni sa moroom teel na teel na yow mi demul daal tegal say raison yu dëgër yu tax demoo ki dem nga bàyyi ko moom mu dem nga toog nag xippi say bët ku mel ni man de loolu laay def maa ngi toog ne jàkk di xool di observer su fekkoon ne yeneen i situation ak yu bon yu ñaaw yii jaar ci daara moo tax wala jaaru fi ñu woote intérêt boo xam ne gisuma ci mitin wala ku leen mobiliser mbooloo ngir am yu nu bëgg bu ñuy woote intérêt pour daara kenn du ma fa njiitu duma xaar ku ma invité wala ku ma invité wul ba tax na man samay raison tax ma toog waa léegi kii dem ma bàyyi ko moom mu am liberté dem ba tey maa ngi toog fa ma toogoon xippi samay bët di xool lu fa jógee mu nekk njëriñu daara ma ne waaw góor lii baax na waaye leneen luy safaan ba tamit ma jugaat taxaw na ma jugee woon taxaw rek su ko defee ñu xam ne li am solo gannaaw la 28 la ñun sëriñu daara yi mais nekkul 28 mooy li am solo gannaaw la 28 mooy ñun sëriñ daara yépp ñu booloowaat kuréelu sëriñu daara yi booloowaat fas yéene liggéeyal téere bi fas yéene liggéeyal daara te jëmmu yàlla rekk tax loolooy al loolooy li am solo te loolu noon nag wax dëgg tic-tac yi ñuy teg nii woo ñi bedd ñële dugg fii génn fii yooyu buñ ñu ko yàqal bu ñu ko yàqal buñ ñu gën a yeew seen nguur yi day jeex ñu bàyyi fi sunu daara yii bàyyi fi sunu kuréel yii kon nag nañu fexe ba buñ ñu yàqal sunu daara yeeg sunu kuréel yii ci seen yii ñuy def nii seen yëfu bopp képp lañu nekk mais li wér te wér mooy pare wu ñoo jël ay milliards injecté ko ci alquran pare wuñu ko li ñuy wax yépp ngir bëgg ko mooy bu ngeen nangoo jàng tubaab ñu defal leen nangam ak nangam loolu dong moom lañ nekk la ñuy nar léegi de ci archive bi maa ngi gis benn vidéo xam naa lu xoromu la euh, <laughs> mooy président ci 2021 bi am na daje buñ fi woote woon daje ba mu nga doon sàkku ma nga doon wax pour ñu recenser yenn daara yi jox leen ceeb moor ñu déglu ko ñu déglu ñu déglu vidéo boobu ndax dana am lu mu lu mu lu mu wane lu bari pour identifier dara yooyu la mais aussi ñu indi leen ay ndimbal ci wàllu dund muy ceeb Sénégal dafa bëgg ceeb loolu moom faaw ñu leen di bàyyi xel ci ceeb beeg déw beeg yu demee noonu. pour identifier yenn daara yi la doon sàkku pour léegi ñu indi leen yenn ceeb ndax sénégalais dafa bëgg ceeb te bii kat mi ngi doon waxtaanee lenn ci mbirum réew mi dugalaale ci invité yenn ci sëriñ daara ya bi ñëwee lan moo doon. solution mooy identifier yenn daara yi pour yóbbu leen ceeb lii gannaaw événement marché yi la lii waaw boobu ñu ngi la ñu ngi ñu ngi labataat daara ji gannaaw événement marché yi maanaam yow sa vision mi ngi tollu ci identifier daara yi yóbbul leen ceeb fa la sa vision toll 64 daara yi waxatoo ca dara te am na lu ma xam nag ci 64 daara yi dafa am lu may xaar rek li tax mu tagga bi ba tey am na lu ma ci xam te ñoom ñu ma nekk ca mbir ya ñoo ma ko wax mhm, lu tax loolu yeggul maa ngi posé question yooyu noonu la ñuy dem nañ ko boole waale ci yéen ñuy yóbbaale mooy suñ 64 daara yi fu mu toll waaw fu mu toll ba tax na kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon moom lañ leen indiloon tey ci seen émission axiru zaman di waxaat rek sénégalais yëpp nañu woyaat di àndaat ak waa daara ji waaye waa daara ji nañu woy di bàyyi xel population bi fii ñu jëm nag ci fan yi ak woote bi am na ci lu mari lu mën a juddu loo xam ne nii après ñoo population bi suñu diggante lay doon loolu nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ku fi nekk fukki at ak benn defalu la dara lu dul di la def di la teg lu la metti dem ba benn at ak nangami weer dese ko fi mu ne kaay ma defal la loo bëgg nga dal xel ne dala ko defal dangaa dal xel rek te rafet ku yor fukki mbur ñaar di maye di saraxe di la xool ngay xiif di sonn mu dem ba benn mburu dese ko mu ne sama benn mburu bi naa la ci may nga dal xel ne dana la may ci sa benn mburu bii nii yaa ngi nax sa bopp na magum daara moo doon wax ne taalibe feek mi ngi yor potam du torox Ah, waaw mooy xam na ne gaa ñi nga xam ne ñooy joxe yenn di ko jox ñenn ñi yow duñ la ca boole mukk yow nag li lay dimbale mooy nga sax ci sa pot bi rek ngir jàng sa téere bi taaliba yi tamit bés bu ñu jógee ko ci seen der yii seen kurus yii seen kaamil yii di topp ci kaw gaa ñii yaakaar seen pal yii ak seen ndomba tànk yi ak seen milliards yii wallahi yàlla dana leen seetaan la Seydina Umar ibnul Xataab waxoon rek moo ci nekk dana woon nun nit lañ ñoo xam ne yàlla mi ngi ñu teralee lislaam bu ñu sàkkoo tedd nga ci feneen fu dul lislaam yàlla toroxal suñ daara yi tamit bi daara juddoog léegi suñuy maam yàlla ngi leen di teral di leen teralee ci daara ñuy jàng alxuraan di ko wattu sampi daara di ko jàngali nit ñu koy wattu te du état moo leen di dundal yor jore lu leen benn dërëm waaye yàlla seetaanu leen tàggat nay nit ñu ñëw ànd ak ñoom gunge leen ci seeni mission ba ñu réussir ko ñu nit képp ku ci bëgg a tedd gëmal sa bopp téere baa ngi fi kaamil baa ngi fi kurus gaa ngi fi bu safee sàpp sa dara du taxaw sa dara du taxaw waaye koo xam ne nii moom problème mu école munu yi mënu koo régler enseignant mi ba léegi ñu ngi nekk di jooyee ko gerew secteur am yim yor yépp mu ngi baax ku nekk ak say jafe-jafe mu mun a koo régler yow mu ñëw ne dana régler say jafe-jafe nga nar a dal xel dal xel mu toll nii waaw jàpp ne daal moom say jafe-jafe war naa régler wu daf ci am ku mel ne man ñu mel ne man complexe rek a leen jàpp suñu déggee turu ministre wala turu nangam fàtte nañ ñoom ne poste bi ñu nekk moo gën a fort post ministre gën a fort poste président xayrukum man taallama alqurana wa allama la yonent bi wax ki gën ci yéen mooy ci jàng alquran ba noppi di ko jàngale yow nga doon ki gën di jàngale li gën ba noppi di topp ci ginnaaw ministre ki président di daw fuñ la woo séminaire ak réunion ak nangam nangam ngay ndamoo tey dañ ma woo wax naa ko fa nee ci ginnaaw ñaata sëriñu daara la ñuy jàpp fii di leen àtte dem tribunal ñi ngay woote ndimbal te ñu bari ñi nga xam ne tey ñoo sawar a wuy ji ci woote yi doo leen fa gis duñ fa xand loolu it problème la ñu baree bari tey bu ñu am na benn sëñ daara bu am jafe-jafe nañ dem ci daaraam wala ñu ngi ko yóbbu tribunal nañ dem war ko taxaw ñu fa xand doo leen gis boole wuñ seen bopp ci yooyu sax waaye heure bu ñu wootee ne ñu ngi am ceeb bu ñuy séddale wala président woote na ñoo fa yéene nekk ca première sàppe ñooñu tamit bis dana jot ñu wax ak ñoom waaw wax ñoom ñooy ñan ak ñooy kan ci biir daara ji fi am ñoo xam ne ci biir daara ji ay politiciens lañ loolu it beneen problème la boo xam ne nii ci biir problème yi la ay politiciens la ñu te nëbbu ñu ne ay politiciens la ñu affiché wu ne ne am nañu diw ku ñu jàppale ku ñu jàppale ku ñu jàppale ku jàppale loolu tamit mu ngi ci biir daara ji loolu problème la waaw léegi ñu mel noonu nag danañ sawar lool ci yenn ci yenn yi ci yenn yi danañ ci sawar waaw waaye wallahu ala kulli shay'in shahid li lañ leen indiloon ci seen émission aaxiru zaman di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi wasalaam texeeg tànk bu gudd ak barke xoolee kalal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaag laaj yaam